mooy Thiès di bërëb boo xam ni ay gaa ñu baax ñu bari ñu ngi fi rawatina jëmm ji nga xam ne moom lañ doon tudd léegi mu nekkal fii xalifa murit yépp di sëriñ Saalihu Ture di ku ñépp xam ci yoonu murit ñoo ngi koy ziyaar di ziyaara mbooleem ñi nekk ci dëkk bi yépp di santar yalla bu bax ci bërëbu jankay yi nga xamne legi buñ setlo dañ fi jang tubab ak di fi jang xam-xam waye murid yi nga xamne ño fi ne saa yoo fi ñewé da ngay amaat mbekté ci ñom ndax ñi ngi sammu seen diiné di sammu seenu talibé té loolu am na jamono mu tumuranke woon lool ci bërëb yu mel nii loolu ñu ngi ci santal yàlla di ci ñaan yàlla mu gën koo dëgëral ci darey Cheikh Bamba waxtaan wi nag dañoo xam ne nañ waxtaanee comment purifier l'âme muy waxtaan woo xam ni xëy na njëkkoon naa ko def ak waa Al Azhar euh, ti Al Azhar Touba te muy waxtaan wu gudd woo xam ni xajaatul ci jataay bi yaakaar naa ba tax na damay jël ya ci ëpp solo ca ma waxoon li ci des nag ginnaaw wax nañ ma ne dina am ay laaj lu ci ñëw ci laaj yooyu lu ma ci xam rek ma wax ko ma tontu ko ma tontu ci bu soobee yàlla ma ci xam waxtaan woowu dañ koy waxoon ne dañ nan la sellale ruux xam ngeen ne ruux doomu aadama moy li ëpp solo ci li nekk ci doomu aadama Sëñ Tuubaa ci nahju al alxaaj gis ngeen mu wax ne fa hadha murabbi ruuxi wa ruuxu jawhar wax ne serignu serign bi ruuxu nit ki lay tërbiya mom lay yar mom lay defar mom lay raxas mom lay selal ba mu meuna am digeentem ak boromam ak ratax am ca ak déggoo am ca mu bëgg yàlla moo tax sëñ wax ne ruux googu nag mooy jëw jëwhër bi mooy mbir mi mooy wurusu euh, wu sell wi moomate ma tey yittewoo ruux googu nag dafa nekk ci biir jëmm ji nu yor jëmm ji ngay gis nii du dara lu may ak kees kees goo xam ni moo ëmb ruux gi ruux ca dëgg-dëgg nekkul ci biir ruux gi nekkul ci biir jëmm ji waaye loolu misaal noonu lañ koy misaalee mooy ruux gi dafa nekk ci biir jëmm ji waaye ruux ca dëgg-dëgg du luy nekk ci biir jëmm borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bare bare bare waaye li ma bëgg wax rek mooy ruux googu nga xam ne mooy yow nga xam ne fii nga toog booy dégg li dégg gi ngay def ruux gee koy def gis bi ngay gis ni ruux gi moo koy def xel mi nga am nii di denc ay xam-xam di ko mën a delloosiwaat loolu ruux gi moo koy def xol bi nga am di am ay yëg-yëg di bëgg di bañ di naw mbir ak yu nu demee loolu ruux gi moo koy def bu ko defee jëmb ji nga xam ne moo ko ëmb nag du dara lu may ak kees rek goo xam da ko def fi ne bis boo faatoo buñ la suulee ci suuf si ay fan yu neew jëmm ji dellu di suuf yax yeeg lepp day mujj doonaat souf matière yi ñu yi yi composé suuf si ñu ne mo composé jëm ji ji nga ji nga yor ni buñ ko sulaté ay fan mu delu souf li tax nak ngay yek di xamé di xam di bëgg di bañ yoy moy ruh gi nek sa bir ruh googu nak lu sel la te mi ngi fi won bu yag yag yag yag yag sunu borom mo no xamal ci alquran ne bis tahawal na ruh yeb ne len alastu bi rabbikum ñu ne ko bala, moy ruh yi bon ñi ngi fi won yow bi nga demee ba wara judd lañ ko jël duggal ci ci sa jëm ji nga judd tuddu muhammad wala muudu wala cheikh wala nangam ak nangam bu ko dee ruh googu nak mo am solo ndax bu sellee set fexe ba diir bi muy nekk ci kaw àdduna bii nii mu sàmmoonteeg bëgg-bëggu suñu borom bis bu delloo dana nekk ci ay xéewal ak i mbégte yoo xam ni kenn du ko mën a misaal waaye diir bi mu nekk ci àdduna bii nii nga xam ne diirub nattu la su sàmmoontewul ak li yàlla bëgg fii nekku ci dana taq taqaay boo xam ne du yelloonteeg dellu fa sunu borom tabaaraka wa moo tax dañ koy dugal ci fu ñuy wax sawara foofu lañ koy tëj daf ak da Cheikh Saliou mu baax ma damaa dégg koo xam damaa ne damaa dégg muy net li wax ni sëñ Saliou daana wax ne murit du dem sawara waaye nag àjjana itam lu bon du fa dugg nan lañuy def mooy lu ku fi ku fi am ay taq-taq dañ koy fóot am na ñoo xam ne ci bàmmeel bii lañ leen di fóote bu setut boo dekkee ñu fóot la ca sawara bu setee wecc nag nga doog a dem dugg àjjana loolu mooy jullit yi faw ñëppay dugg àjjana li ma bëgg wax rek mooy ruux gi taq-taq yi mooy tax du mën a yelloonteeg nekk fa bërëb yooyee nga xam ne moom la yàlla waajalal jaamam ñi nga xam ne da leen a sopp ruux googu nag moom lañ bëgg a waxtaane xam ngeen ne mission wu yonente yi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam yonente yépp seen mission mooy tazkiyatu ar ar alwaax ar ruux ci alquran sun borom wax nanu ne kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum tazkiya mooy purifier bi ngeen wax léegi yuzakikum dafa bokk ci mission yonente bi mooy tazkiya mooy sellal ruuxi ak xoli doomu aadama yi wa yuzakikum wa yuallimukum alkitaab wal xikma am na beneen aaya boo xam dafa wax ne huwa alladi baata fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim mooy tazkiya muy sellal ruux loolu dafa bokk ci mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñoo ko donn yeesal diine ji ba tax na ruux gi dinaa koy wax ci waxtaan woowee wax naa ca nii ruux lenn rek mooy ak lekkam suñ Tuubaa da wax ne waalam bi anna dikra quutul qalbi ruux ak dundam mooy yàlla ak lu aju ci yàlla ak tudd ko ak fàttali ko ak waxtaane lu aju ci yàlla ak i gaayam loolu dundal ruux léeg-léeg nga gis nit ñoo xam ne dañuy bañ xeet yooyu yi ma wax duñ bëgg a ci jataay yu mel ñu bëgg a dégg fu ñuy waxtaane lu baax mbir yu bari ci yu baax nii daleen leen di soof ñooñu mooy dañoo feebar dama koy misaal ci sa jëmm ji nga yor leeg léeg mu feebar léeg-léeg mu feebar ba li gën a neex ci kaw suuf da koy bañ moom mu soof ko te du ko bëgg sax xeeñ lekk yu neex yii nii ceeb yeeg ginaar yeeg yooyu noonu boo siburo bu la xeeñee sax ngay bëgg a wàccu da bëgg ñu ñu génne ko fi nga ne loolu tekkiwul ne ceeb bi wala ginaar yi ñoo ñoo ñoo neexul wala ñoo am jafe-jafe yow yaa am problème yaa wéradi ruux gi noonu la ruux gi lim gën a bëgg mooy yàlla ak lu jege yàlla soo gisee mu bañ ko rek dafa feebar bu feebaree nag dañ koy faj bu ko defee faj googu ñu koy faj moo fi indi yónente yi yónente yi ma nga tàmbalee ci sayidna aadama alayhi salaam ba ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad bi mu fi jógee ay nit ñu baax ñu ko donn ci zaahir ak ci baatin ñoom la yàllay waajal ñu ñëw yeesal diine ji ñooñee nag ku ci ne itam yitteem mooy defar nit ak sellalaat ruuxam ba mu mën a jege yàlla ak mu mën a mos ci leerug suñu borom ak bëgg yàlla dëgg-dëgg fees xolam loolu it ba tey lu wér la ci alxuraanul karim suñu borom wax nañu ne wali li kulli qawmin haadin mooy nit ñu ne yabalal naa leen ku leen di jubbanti ak di leen gindi jubbanteeg ginde nit yàlla yi ñoo koy def loolu fi ñu koy déggee mooy lan beneen aaya boo xam ni sunu borom dañuy wax ne wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan ñi yàlla bëggul ci ñoom ñu jub bëggu leen a jubbanti da leen dut booleeg waliyul murshid mooy ku leen di jubbati di leen defar di sellal seen ruux ñun nag kon am nañ taw feex ndax yàlla boole na ne koo xam ni moo doon tëskiya mboolem ñu jamonoon teel ba bàyyi fi nag programme bi nga xam ne ci lañuy ñuy tëskiya ñi ñi ñëwagul muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu kon yàlla bëggal nañu ak njub te bëgg nañu itam moo tax mu boole noog moom ni ñuy toppee nag ku mel noonu loolu lépp ci alxuraan la ne li ñuy waxtaan ni lu ci ne mën naa ci mën na ci indi ay aaya ak ay xaddis waaye day gudd day gudd xam ngeen ne sayidna muhammad ku ñu wax xandala ak ku ak sayidna abu bakrin mas nañ koy jàmbat ne ko nun buñ toog ak yow da suñ xol day set sell ñu yëg ay yëg-yëg yoo xam ni day mel ni dañuy janloo ak alaaxira ak la ca xaw waaye buñ demee ci kër ga foo ak jigéen ñi dañuy génnaat ci xaal boobu ba mel ne dañuy dugg ci xaalu lu ñuy wax sàggante Seydina Muhammad lam lam leen tontu mooy lan da dafa dafa giñ wax ne walladi nafsi bi yadihi law taduumuuna ala ma takunuuna indi wa fi dikri la saafahatkum almalaikatu ala furushikum wa fi turuqikum xaal bi ngeen di am bu ngeen nekkee fi man ak bu ngeen nekkee di tudd yàlla xaal bi ngeen ci am yi ngeen ci jëlee su ngeen doon sax ci loolu diir su néew malayka yi di saafu xante yéen ci ci seen kaw lal yi ak ci mbedd yi ngeen di leen gis ñu leen gis ngeen di ñoom kon da teg ne walakin ya hamdala saatan wa saa moy hadith bi imam muslim natali moy da ngay def waxtu ci li delu nak ci aduna nga def ci waxtu équilibre boobu sëñ bi nga ki ma doon wax thème bi mu ngi ko doon junju mënu ci ñàkk mooy mbirum yàlla mi ak xaal yee daanu jël yi ak maanaam njàng mi def ci ab temps waaye defal beneen temps yi tam ci nooy lijjante sa adduna nooy lekke nooy naane noo amee njaboot ak noo koy taxawale bu ci ëpp rek jafe-jafe de daal di am su ëppalee mbirum àdduna bi di nga sànq waaye mbirum àllaaxira mais su ëppee ci yow it da ngay dugg ci li ñuy wax jës ba majzub moy li jox majzub moy kenn du jarign ci yow te do jarign kenn ku la diingar yàqu waaye kenn du la roy ci tasawuf dañuy wax ne majzub kenn du ko roy parce que boko don de day sàkku sax ci mom ñaan ndax bu lay ñaanal lamay lay ñaanal man na don lu bax waaye du gën ci yow mom xal bam ne man la ko ñaanal masalan motax fi dañuy wax ay kilifa yu bari du leen tudde majzuub te ñoom weesu nañ ay majaasib ñoom ay ay ay ay ñu ay ñu mat lañ woon ci ñi Sëñ Tuubaa yaroon rawatina bu ko defee kon loolu dama ci doon leeral rek ni jëmmi tazkiya muy sellal ruux gi ak jëmm ji nga xam ne moom la yàlla tawféexal muy mu koy mu koy def ak di sellal nit ñi ak di leen tërbiya loolu yi mënta ñàkk te lépp ci alxuraan lañ ko lañ ko jëlee bu ko defee ruux gi ni ma ko waxee léegi dëkkul ci monde bi bépp ca pays yu kawe yàlla dëkk fi ne bari na mbégteem xol mooy mooy yëg te fekk ruux gi moo ko yëg boo déggee kàddu gu neex rawatina kàddu ñiy jàng xasida léeg nga yëg ci sa xol bànneex boo xam ni bokkut ak bànneex yi nekk ci kaw suuf xam nga jëmm ji dafa ay ay bànneexi boppam mooy lekk moo ko neex ak lu melni sey digënté goor ak jigen ak yu ni démé yoy mo neex jëm ji ni bakkan bi li ñax bakkan mo représenter jëm ji waye ruh gi dafa am yeneeni banex tay bo toogee ñu jàng da léeg-léeg sa xol dana dana dana da nga yëg xéetu mbégte mo xamni da nga xamni li bokut ak banex yi nekk ci kaw suufuf da am ño xamni nak seen jafé jafe mooy mbégte dañ koy gatanu bëgg ci sax waxtu wu dañ koy gàttandu ak di ko taatan ngir bëgg mu sax ci ñom bu saxé mo leen du jural ñu ñu teqalikoog nit ñi ndax xaal boobu moy li sa yonte boxoon sahabi bu bo ci saxé dooto bok ci nit ñi légui mbégte momi nak fan la juddo moy ruh gi du ceegee sax li da ko neex ruh gi waye dafa fatlikou bam nekké ci ci monde yoyé nga xamné yu sel la jege boromam dara lu lu naqar yàlla amul foofe mbégte mam fa daa dund moom lay fàttaliku moo tax mu yëg li wax tarab mooy sikire lañ ko wax ci wolof mbégteem xol moo xam ni kenn mënu koo misaal ba tax na ki nga xam ne dafay yittewoo xam fi ne te dangay gis tubaab yi nga xam ne dañoo maanaam matériel da leen a mëdd seenub dund day gis ko xam ne am adduna ak li ci biiram am alal yow lim yor ci xaalis du jeex lekk yeeg naan yeeg lépp jàppandi ne gañ waaye léeg nga gis ñu toog dara du leen neex ci mbir yi fi mu ne tey boo demee ci réew yi eh, tubaab yi léegi li ñuy wax xeeti hôpital yi yi nga xam ne day faj wàllu psychologie ak wàllu xelu nit ki kenn xam nu léegi dañuy am àdduna ak ba li mu ne gañi seen biir ba pare duñ yëg bànneex moo tax ñu bari ñoom di dugg ci dorog di jëfandikoo dorog ak yeneen yeneen lan moo ko waral mooy seen ruux moo tumuranke monde biñ ko biñ biñ koy dundaloo nii neexu ko te dara lu koy lu koy lu koy dundal amu ko du lek du nan roh gi day gën di tumuranke di gën di fay léram di tuti di gën di tuti ba mujju day dé mom roh gi lélé nak moy yeglu moy mooy li fën ci ñom té dara du ko war dara du ko sabab té aduna li xéti bànneex yépp nek fi seen kanam lolu njàqare lolu roh gi mo koy sanni mo koy yeglu motax roh ruux lu mata baye xel bul top rek sa jëm ji ay bëgg-bëggam ba faté ko dara ëpp ko solo te li tax yàlla nattooñu ruux gi noonu ñu war koo defaraat defar xol bi ba mu nekk suñ borom jege suñ borom mooy loolu ab nattu la bu yàlla nattu nun nun doomu aadama xam nga ne adduna mbooleem li koy doxal lépp yàlla da ko tër ci kaw lan ak bëgg ngir adduna bi mën a mën a wéy dunn gi mën a wéy jaamu yàlla itam ak jege yàlla ak bëgg moo koy lal waaye bëgg googu yàlla daa bëgg nga fàggu ko nga def coona ci am ko mooy tax nga yeyoo lam la ci war a faye fi mu ne lii tax sunu dund a jag lépp yàlla da ko tëral ak bëgg moo ko lal dina ko misaal ci lu mel ne misaal wax am kër sëy sëy lu metti la dara gënta metti yor kër bu dee jëmmi jotee góor ak jigéen tam loolu dara gënu ko bu ci bànneex bi génnoon bëgg gi génn ci kenn du ko def ci noonu parce que lu lu lu ñëpp dañ koy seexlu masalan xale bu ndaw bii doog a juddu yaayam di ko toppatoo di sonn ci moom bu doon ak bëgg gi mu ko bëgg fi mu ne da koy bàyyi mu faatu xam xale buy doog a dëkk ci jooy mën a wax ak moom lu mu dégg ñaari baat ñett mu jooy dis di tuur ndox ci sa kaw ci sa kaw yére di dem wanag ci sa kaw yére te doo ko loolu coono bi ci toppatoo ko bu ko ak bëgg la lu toon yaay yi ku jur doom danga koy sànni te boo mu faatu te boo kenn kenn du màgg te boo boo kon dund gi du am ngir wéyal dund gi moo tax yàlla def ci ak bëgg ndey ji bëgg doom ji bëgg gëmewu ko tax mu jaral ko ay gudd yu bari mu ñàkk koo nelaw guddi ngir maanaam doom ji euh, mën a dund fi ne lekk mii nii bu ci bànneex bi génnoon bëgg gi nga bëgg lekk génn ci kenn du lekk ndax lu lu sonle la te bari coona dara gënta sonle lekk yow nag doo ko seetlu ndax bànneex bi ci ne wut alal dara gënu koo metti waaye neexitu am alal moo la koy fàtte wut wut gi taxawal ay entreprise ak ay liggéey yu mag di ci sonn kër kër ji ngay def ngir ngir mu taxaw loolu dara gënu koo coono waaye bëgg alal ak bëgg boo amee alal ji di ci dund bànneex boobu moo lay fàttaliloo coono bi kon yi tax dund géewe yëpp yàlla da ko lal ci ak bëgg waaye bu dee nag sa diggante ak sa borom ruux gi ngir mu sell loolu moom ab nattu la bu yàlla di nattu doomu aadama yi bëgg ñu def ay effort pour ñu yeyoo lam leen di faye ginnaaw bu buñ delsee fa moom moo tax nit ki war a def effort ci ruuxam ak xolam sell ruux ak xol yooyu nag ay mbir la yoo xam ni ba tey mënee suko expliquer bam leer deug deug xol borom xom yu bari dañuy wax ne moy li li dox diggante ruh gi ak jëm ji su fekkee da nga top say banex banex yoyu lëndëm gi mi sorti ci xol bi moy fay reer moy fay leer ga ci ruh ga de wo ruh gi itam di dundal di def lu bax di tuddu yalla lu bari leer gay sotti ko ci ruux ga ko ci xol bi bu yagge mu feeñ ci jëm ji moo tax loolu xol ba tey bokkut ak cër bi tubaab yi di opéré ci jëmmi doomu aadama déedéet foofee nag la ruux di def jëfam di fenket li ñuy wax fenket manifestation bi muy def ci xol boobu la koy def ngir nga am ay yëg-yëg même manifestation boobu lay defaat ci xel ci li ñuy wax yuur boog yuur pour nga am xel xellu ak yëg ak xam-xam yi nga mën koo denc foofu ay yu di demee ruux googu nag pour mu sell waxoon nañ ne Sëriñ Tuubaa ku ma saa ñëw ci moom am na yoon mën hëj bu mu la daa jaarale tërbiya la ba yeewi la loolu waxtaane naa ko yaakaar naa ci bërëb lépp ma jële ko ci minanu baaxil xadim waaye tey loolu du waxtaan wi waxtaan wi mooy ki nga xam ne mi ngi ci liggéeyukaayam wala mu nekk ci yittey boppam muy jàng wala feneen giseewlu yalla def na comme nun ni dajé wok tuba te té giso ben boo bo xamni tam sak jot mayna la nga dem fi mom ba mëna mo la nan ngay def ba sa ruh sel ak sa xol set loolu dañ ci tibbon ñenti ponk ñenti jéego yo xamni ni ci njàngalem sëñ touba lañ ko tibbe ak terbiyam googee te képp ku ko saxo diir su neew nga gis jeexit ci sa xol ak ci sa ruh nañ ko tërale woon ci waxtaan woy nag dinaa ko soppi tuuti ba mu mujje woon lay jëkki tey muy bi ci jëkk ñeenti jéegalu bu jëkk bi mooy lan lekk lu lew loolu secret la boo xam ni nit yu baax ñi ci la wuuteek mbooleem ñu may ñoom bu gisee Sëñ Tuubaa fu masa ne ba nit ñi fekk si ko mu tuxu dem ci euh, feneen beneen bërëb bi mu jógee bi mu nekkee Mbàkke Kajoor xam nga fa la jógee dem Mbàkke Bawol nit ñi bari fa coow li bari mu jóge fa dem Daaru Salaam bañ fa tàmbalee bari mu jóge fa dem Touba bañ fa tàmbalee bari ñenn ñi yeewu ko wuti soxna ndax ñi daa tërbiyee ku ci yeewu ko dañ leen di wutale kër ñu wuti soxna góor ñi jigéen ñi tàmbalee jaxasoo mu dem Mbàkke Bari Jolof foofee la ko tubaab yi jële yóbbu ci géej gi wéet googu da ci jublu woon sori lii yàq ak di xajamal ak dund dundug ruux ñaareel ba itam da ci jubluwoon it man di bay lu leew ba muy dem ci géej gi dénk na borom daal moo ti ñaari bayët yoo xam ne da ko wax ne ko wa fi zar'i ruuxul xalqi in kunta aaqilan mooy maa ngi lay dénk nga yitte woo mbay ndax mbay mooy loo xam ni daray sikk nekku ci fi ne tey kii commerce commerce bi day gaaw a am ay ay ay sikk ndax danga wax lu amut wala nga ne piri bii lii laa ko jënde wala jëndoo ko wala mbir yooyu sew saan yoo xam day sikk waaye mbay na yooyu yëpp amu ci yaa jël sa jiw def ci suuf si mu génnee la lii doo seq kenn leneen moo tax sëñ bi dénkoon ko mbay mbay moom nag ci àll lañ ko mën a defee li ñu jubloon mooy lekk lu lew sëñ Tuubaa dara wax ne dara digle ne wajtahidu fi talabi alxalaali na ngeen farlu ci lekk lu lew lan moo tax mooy dara wax ne laa yanfau alilmu wala alibada bil akli lilxaraami inda saada soo dul lekk lu lew mënoo jaamu lu yàlla nangu sooy ñaan yàlla du ko nangu loo mën a def ci lu baax yàlla du ko nangu xam-xam yi nga am yàlla du ko barkeel du ko nangu ndax li ngay dunde lewut loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo nu ko misaal moo ne nu benn waay boo xam dafa nekk ca àll ba moom nekkul ci biir dëkk bi ca àll ba la ne di dëkkee yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi di ñaan rek ak di jaamu yàlla te fekk li muy dunde lu lu léwut lim sol léwut léppam dafa dafa da da ko da maanaam yaramam wi dafa sax ci ak xaraam mooy lépp li muy dunde lépp lu xaraam la koke yonte do xane lum fa yag yag ci àll ba di wax ya rabbi ya rabbi ken du ko wuy yàlla du ko wuy anna yustajabu lahu suñu borom wax na ci alquran ne yonente yi ku ci ne yàlla lam lay dénk moy ya ayuha rusulu kulu min at wa wa'malu saaliha bo beugé di jëf-jëf ju bax ju yàlla nangu na nga xënte woo di lek lu lew kulu min at wa wa'malu saalihan do nga ñëw motax lolou moy secret bi sayyidna saad ibnu abi waqas dañu wax ni masna naa laaj bi ne ko dama bëgg luma ñaan yalla nangu ko bi dañ ko ya saadu atib matamak takun ad-da'wat so bëgge lo ñaan yalla def ko da ngay fexé ba li ngay duggal sa giw li ngay lek mu lew lolou kon moy poñ bi jik pour li ngay def nii am jeexit li ngay jàng ci xasidaak li ngay jàng ci alxuraan yi nga def ci lu baax lépp ngir mu am jeexit faw fexeel ba jëkkee li ngay dugal ci sa gémmiñ gi na lew lew nag yëmul foofu fi ne sa kërit la nga fay def kër gi nga tabax nii ak ni meebal yi nga cee def yooyu yëpp <coughs> fexel ba mu lew moom loole bu amee loo def lum néew néew yàlla dina ko nangu ci yow bu dul loolu nag li ngay def lum bari bari bari yàlla du ko du ko du ko nangu loolu mooy jéego bi jëkk fexel ba li ngay lekk lew Sëñ Tuubaa itam daana wax ne bokk na ci loolu li ci jëkk mooy fi nga njëkk a tàmbale mooy fexel ba ñi ngay àndalit nga xool leen boo dee ànd ak nit ku bon ku taq ku xolam màggat maxe tilim taq kooku boo dee ànd ak moom faw sa xol dalay wàll dalay wàll la ne fa moom moo tax Sëñ Tuubaa dara wax ne ñi ngay li ngay njëkk a def na doon xool ñi ngay àndal nga tànn ñu baax ñi ngay ànd ak ñoom ñi ci des ñëpp nag masalaal ak ñoom jox leen cër waaye yow ki ñi nga am ci ay xarit nañ doon nit ñu baax ñoo tànn ñu sell ñoo xam ni seen jikko rafet na nga doog a ànd ak ñoom bu ko defee doog a def nag euh, lii ma jëkk a wax mooy di lekk lu lew fexe bay lekk lu lew lekk lu lew moo lay dimbali sax ci mën a topp yàlla suñ tubaab dina wax ne fakul xalaalan in aradta an tutia allaha wa rasula ya hada al mutia soo bëggee topp yàlla da ngay fexe ba li ngay lek lew fimne ki nga xamne limi dund lewut top yàlla yi da ci tayal yu bari yu bax da ci tayal du ko neex man nako def sax way du neex ci xolam du yig neexit wi fi mu ne ci misaal dafa am yo xamni day tax do yig neexitu xol neexitu xol bii ñu waxtaane lu am la ñu bari leleg ñu mosti ci as ngelaw su su tuuti upp seen xol ñu mos ko dinaa koy misaal ci benn saxaabi yi bu ñuy wax abbad ibnu bishr dinaa koy misaal ci moom dafa am benn xare boo xam ne yonent bi da ko doon dem bi nee ba guddi ñu campé fenn ci benn xur mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari saxaab yi ne leen ngeen ngeen garde euh, nit ñi maanaam ngeen toog bañ a nelaw ñi ci des nelaw ndax bala ñoo yéefar yee bett ku ñoo abbad ibnu moom am nañu wax ne abdullah ibnu mas'ud am nañu wax ñe yeneen saxaab yi waaye lu mën a xaw moo keneen la ñoom ñoo doon ñoo waroon a toog euh, bañ a nelaw jullit ñëpp di nelaw bi ñu toogee ñoom ñaar ñu wax ne ñu déggoo ci kenn ki na nelaw bu ci kanamee ma yee ko man ma nelaw tuuti moom moom mujju garde Abbad ibnu bi mu bi nga xamee ne keneen kaa ngay nelaw moom muy garde mu ne naa far julli bañ a nelaw ndax toog rek di xoole nii loolu amul njariñ naa julli bi muy julli nag te yéefar yi ñëw nañ di leen wër ba jege leen ba séen ne fii lañ kàmpe ñu gaaw wootante ñëw gis ne kenn rek moo ci nelawul ñu ne gaaw nañ ko fett dañ ko dóorug fett rek su dee walla mu faatu ñu fekk nag jullit ñi fañ ne ñoom ñëpp ñu faagagal leen foofe ñu daal di fet benn fett mu dal ko ci ci ci ci ci ci ci ginnaaw gi walla ci dox gi waaye taxul mu faatu deret ji di sar di sar xam nga fet xam ngeen bali fett moom day dugg ba sar moom bu ko dee deret sa deret di tàmbali di tuuru di di di car di génn waaye taxul mu dagg julli gi mu continuer allahu akbar daal di daal di rukkoo ñu ne waaw moom moom faatuwut ñu jamaat beneen fet mu dal ko ci digg ginnaaw gi deret ji di sarsari di génn waaye taxul mu faatu mu ne sami allahu liman hamida waxat allahu akbar dem dem di sujjóot ñu ne moom taxul mu faatu dañu dóoraat ko nag beneen fett boo xam ni da ko dal ci am pàddu ñetteel fett mu xam ne nag moom day faatu mu dóor abdullah ibn masud wala saxaabi bi ñu ko boole loon yee ko ngir mu ngir mu jóg bi mu jógee seen deret ji wër ko sam ko mu tàmbali yee mu ne ko yow lu teewoon nga yeenu ca fett gu njëkk ga mu ne ko su ma bañuloon ñu ñëw fii bett yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yépp faat leen bu ma bañutoon loolu du ma sax sëlmal ndax maa ngi doon yëg bànneex boo xam ni amul mësuma gis lu mel noonu ci kaw suuf moom yëgul mettit ba tax na ruux dafa am ay bànneex yoo xam ni kiy lekk li nga xam ne kiy dunde lu lewut nag du mos yooyu bànneex mukk ak benen bir bo xamni dama ko ci bolé ni rek moy yoonte bi daana wax ni na ngeen moytu xol lu haram sa yu sa be tege ci lu haram di nga am gën ja néew wer wala ñaar wer yo xamni do doo yik a yëg xol di nga dem ci bërëb yi yëpp gaay yi yik seen yik yik ngay kan gaay dañuy wala bok liñ dal ndax gaay dañuy daanu yesi wala dañuy tak ay giri giri fekk yow yaa gay nyom yi ñoom ñi ngi li ñu yëg fekk yow yow li la jural loolu mooy xool ya nga xool xool yi nga xool lu xaram day day yàq maanaam bànneex boobu day tax doo ko yëg rawatina nag jamono jii nga xam ne moom internet ak yooyu nga xam ne ba ngay dem xool film yoo xam ne kenn mënu ko wax la ca ne kenn yàlla musal ci loolu kon bu njëkk bi mooy loolu ngir jëkkante waxtu wi bi ci topp boo lijjantee ba li ngay dunde lew soo dee xale nag nekk ci kër bul jéem a ñaaw njort ca waa kër ga lañ fay def yow fexeel ba jàppal ne ñoom fu lew lañ koy jëlee rek waaye li ngay am yow ak di ko lijjanti moom fexel ba lépp lew bul sàcc bul nongu yëfi jàmbur bul ko jëlee ci anam goo xam ne lewut te boo dee jaay wala ngay jëflante itam ci wàllu liggéey ne lépp tege ci anam gi ko sariya bëgge mooy tax mu lew su loolu weesoo la ci topp lii moom jéego bii mën a njëkk a wax jëlu temps ci yow boo ko mësaa di waxtaan damay wax ne lii ma la wax lépp du daanaka du jël 40 minutes ci yow te boo ko saxalee amul sikk ci diir bu néew man am na gaa yu bari yu ma xam yoo xam ni ginnaaw bi bi ñu seetaanee band band vidéo yi wax nañ ma ni ñi ngi ko doon appliqué jéem appliqué waaye gis nañ ci jeexit yu bare bare kon loolu moo ci jiitu mooy fexe ba yow. xereñe seetandal bu baax li ngay li ngay li ngay dunde ak li ngay am mu lew bi ci topp mooy lan mooy tudd yàlla tudd yàlla mooy lan tudd yàlla lu bare la alquran mooy tudd yàlla gi gën a kawe Sëñ Tuubaa ko wa afdalu dikri kitaabullahi loolu la Sëñ waaye yeneen tudd yàlla yi bari na istigfaar muy jéggalu yàlla loolu tudd yàlla la laa ilaha illa kooku tudd yàlla la salaatu ala nabi allahuma salli ala sayyidina muhammad yooyu yëpp ci tudd yàlla la ñaan tudd yàlla la yooyu nag boo leen seeta yooyu yëpp daje na ci xasida Sëñ Tuubaa yi boo seetloo xasida yi am na yoo xam ni day jagoo ci genn fànn am na xasida yi salaatu ala nabi comme jaalibatul maraaxib ak nuuru daaree nekk mafatixul bis rek muqaddimatul xidma yooyu xasida salaatu ala nabi la waaye am na xasida yoo xam ni tagg yonente bi la loolu ba tey ci salaatu ala lay dugg ndax Sëñ Tuubaa fu mu tuddee turu yonente bi faaw mu julli ci moom moom loolu da ci du tàyyi du ci tàyyal fu ko tuddee lu mu jege jege faw mu doxale fa ak salaatu ala nabi doog a àggale wax bi kon xasida tagg itam salaatu ala nabi la am na xasida yoo xam ne digganteem ak boroomam la mooy sant yàlla la xasida sant la comme bi muy dem ci géej gi xasida gi mu ci def asiru ma al abraari xiina asiru na wadanna al ida anni hunaka asiru xasida yooyu ak yu bari ci géej gi ak ginnaaw géej gi xasida sant yàlla la te sant yàlla mooy tagg ko ak ñaan ko ak wax xéewal yi mu ko defal mu di ko ci santaat yooyu yëpp ba tey axeet tudd yàlla kon xasida yi xas ay tudd yàlla la yu kawe ndax dafa bàyyi ko ci xolub Sëñ Tuubaa ak ruuxam loolu moo ko wuutale ak wax yii ni wax masalan nga formé sa salaatu bopp lu koy lekk salaatu yi sëñ bi def mooy ñaari xol yi ñoo wut ak ñaar ruux yi loolu dañ ci ñëw léegi xol bi bu seetee dëgg dëgg baat bi muy wax bu fay génn day jël mbubb xol mi maanaam xol bi na mel mbubb mu mel noonu lay la baat bay la baat bay sol bu dee xol bu fees dell ak ak leer nopp bu mu àgg faw mu jeexital ci borom nopp bi faw mu dugg ci xol bi faw mu sax fa def fa jeex jeexit loolu la xol bu baax sell leer noonu la wuuteeg borom xol bi nga xam ne tey dafa taq tilim adduna fees ko kooku ay waxam du weesu nopp yi dégg yi nga koy dégg du defaat benn jeexit ci kon ñaareel bi mooy tudd yàlla tudd yàlla nag ñi ma ko waxee lu bari la te alxuraan moo ko digle wadkur isma rabbika bukratan wa asilan wadkurullaha dikran kathiran wa dhakirina allaha kasiran alquran moom looloo ko fees kasiran dikru moom fu mu ko waxee rek kasiran la ci teg mooy na bari waaye nag tudd yàlla ay façon la wax gi ngay wax ni di tudd yàlla di jàng nii loolu tudd yàlla waaye boobu taxul taxul a jóg taxul noo jóg boog maanaam taxul a du objectif bi nit yàlla yi liñ bëgg ci yow mais Sëñ Tuubaa li bëgg ci yow du tudd googu tudd gi mu bëgg dëgg-dëgg mooy tudd xol sa xol di fàttaliku yàlla tudd yàlla mooy di ko fàttaliku lu ñëw nga delloo ko ci moom loolu it wax naa ne moo tax anam gi ma wax ci gi ma jublu ci tudd yàlla anamu ñaareel googu laa jublu mooy mooy xol bi di tudd yàlla soo bëggee na sa xol gaaw a mën a fàttaliku yàlla am na yoon wu ci gaaw te waxoon naa ko ci kaset yooyu mooy nga fexe ba xéewal gu ñëw nga lëkkale ko ak kii la jox xéewal gi Sëñ Tuubaa bi muy jàngale sant ci masaalikul jinaan dafa wax ne shuhuduna min dil jalaali niama mooy xéewal gi nga xam ne yàlla moo la ko jox ci misaal yu bare bari la fi mu ne su gudd jotee muy mooy misaal mi mi nga xam ne moom la ci ëpp lu ma koy misaal bu guddi jotee looy def lu may dem tëdd ci lal bi tàmbalee gëmm ak euh, gëm di xaar xéewalug nelaw dangay gëmm di wëlbatikoo ko wala ba keroog nga yëg ne nekkuloo fi maanaam dootoo yëgati sa bopp soo demee ba noppalu ba noppalu ba noppalu nga delsiwaat xamaat li xew yëg ne delsi nga yow yóbbu sa bopp dellu si woo sa bopp itam loolu dara gënu koy xewal neewal nelaw moom nga gis boo amoon ñetti fan yoo xam nelawoo kenn du xam looy nuru doo wax luñ dégg doo wax lu doo mën a communiquer kenn ñetti fan yoo nelawul kon xewal googu saa yoo tëddee di nelaw wala saa yoo yeewoo war ngaa santaat yàlla loolu mooy nga lëkkale xewal gi ak boroom xewal gi nan ngay sant yàlla mooy yónante bi moom loolu la daa def بمشى تدبي ولا لا يوح الحمد لله الذي رد إلي روحي ما عندي سنت يالله مما دل وارد سمع روح ده كلام ما نخ نلو ديلا ديا غندا ولا لولو جن لجي خيولي مثلا بو بو بو خيو سبا دوغي تي وانا غويني بو دمي man nga fa def yu bare bare man nga tour ndox tour ndox dara gënu koy xéewal la pooseen yi yi nga xam ne moo moo moo dajaloo ci sa biir bi nga am xéewalug man koo sotti ci jàmm bu bu bu ñàkkoon a ñëw moom tuur ndox googu ndox moom bu fekkoon ne danga am ay fan yoo xam ne mënoo koo génne hôpital nga jëm dañ lay opéré dugalal la ay raakool ak yëf fooy am na ñu am yooyu feebar nga ay raakool ak biiteel yu mag ay bidon yu mag lañ leen defal ci ñu di ko yóbbaale nga xam ne mënatuñoo dem fenn moo la tax kon loolu xéewal la xéewalug mën a tuur ndox ak la ca des posen yi nga xam ne moo dajaloo ci ci sa yaram lekk gi ngay lekk ni la ca baax moom la yaram wi dunde la ca des mu def mu dajale ko ngir nga génne ko buy génn sax dafa yëglu yow nga yég ne war na maa dem ci toilette yi nga dem dikkaat kenn du xam ci yow dara loolu dara kay gën ko gën ko nekk xéewal dafa yàgg ak nun nu miin ko ci sunu dund moo tax duñ ko jàppe xewal waaye dara gën koy xewal waaw mun fukki fan yoo xam ne mënoo dugg ci wanu yoon boo fa duggee doo mën a génn dara yow moom lii gaa yi wax doo ko mën a te xam doo mën a teew ci jàng yi doo mën a dem fenn sa yitte mooy dem hôpital pour ñu saafara tey masalan boo jëf defee loolu ngay def ba noppi ndox mi ngay jëfandikoo dara gën koy xéewal dafa bari ci say bët tax yow nga fàtte ne xéewal la waaye imagine ndox boo ko ñàkkoon tey ñetti fan ñetti fan boo sa yitte jëpp ci noo ko amee ngay def te kenn du xamante looy nuru ñetti fan boo ko mànkoon ndox te ndox mi fi ne qualité bi ko yàlla def mu yem ci sag naan yooyu yëpp ay xéewal la mënoon naa gën a diis comme diw diw bu doon mooy ndox ko nun duñ ci mën a jël lu bari ay diwu ñor ak xeet yi xoy yoy ay ndox lañ waye ndox yoyu mënuñ ci consommer lu bari parce que lolu ku ko doon consommer du soti dañu dé légui wa yalla defal nu benn qualité ndox bo xamni ne na ci ak suñu dundu waxtu ne ñu koy mën mu yomb itam lolu dara gën koy xewul muy dem rek yonente bi masa dara jangalé ku génn ci wanak lan ngay wax da ngay sant yalla fofu alladhi عافاني نقول هاي أذهب عن الأذى وعافاني ما شاء الله الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني في من موت هيا وبوجين نتي وانا أيام وحني فعل بواخ لول ينتبه واي دولة تيسا خل دولة تيسا خل نكر لي خي ولا قم يا الله توفي خل ممن كو جفني كو موت هم عن تيسا خل مثلا yu bare bare la fi ne li ngay dund lépp xéewal lekk lekk masalan añ bi walla reer bi li nga tiim la ca daje ci ay xeeti lekk ay xeeti yu bokkut yoo xam ni kenn xamul fu ñu leen bayee yépp ñu dajale ko nga mën koo tiim man koo xéewloo mu jàll jàmm te benn jafe-jafe loolu dara gën koy xéewal moo tax yonte bi masaa jëfandiku ba nopi dara digle ni ku jëfandiku ba nopi na ngay wax alhamdullahi alladhi atamani hadha at'am wa razaqanihi min ghayri xawli minni wala quwwa kon lool la jublu moy xeeti xéewal yoyu nang koy fatlikou te diko lëkkale ak yàlla mi nga xamne mo la ko xéewale loolu moy li gëna gaaw ci sa xol di tuddu yàlla ak diko fatlik dir bu néew fimne boko ne boo ko def lu ñëw nga lëkkale ko suñu borom masalan yow nun fi ne yu bari dañuy fàtte yàlla sax nun murid yi ndax sëñ Tuubaa fees bu mu fees suñu bët waaye ànd gi nga ànd sëñ Tuubaa fi ne war nga ci sant yàlla ndax yow mën ngaa judd di sàppone wala nga ab ñàkk wala kenn xamut doo xam sëñ Tuubaa doo ko gis wala nga dëkk ci réew mi doo am tawféex yi ànd nag moom kon ànd gi nga ànd ak moom nii war nga ci sant yàlla lépp loo yëg ci xéewal gis ne ci ànd gi nga ànd ak Sëñ Tuubaa nga ko amee itam loolu it war nga caa sant yàlla te sant yitam fi mu jaar muy Sëñ Tuubaa ñaar yooyu day am ñu ñu ko mënta ràññetle waaye dinaa koy misaal ci lu lu yomb dégg mooy tey boo amoon mbokk mu nekk bitim réew màggal jub wala xew-xew yi seen cant yi jub nga war ci am lu la ci war te amoo fenn foo mën a jaar ba def li la ci war nga jëkkee rek benn waay ñëw nuyoonte yow ne la man kat maa ngi jógee Italie wala France wala nangam sa mbokk diw sàngam wala sa xarit diw sàngam moo la jox enveloppe bii nga ubbi ko muy xaalis boo xam ni mën naa jagal mbooleem li nga li nga am ci jafe-jafe foofu di nga sant ñaar mooy waa ji la indil enveloppe moom di nga ko sant moom ko rëy waaye nag kan ngay gën a sant mooy ka ko yónnee te nekk Italie kooku boo ko jotee moom di ko sant cant gu rëy ñaar yooyu nag benn bokku ci kenn ku ne ak cant boppam mooy xéewal gi fa mu bàyyi ko ak kim jaar nun ñii ànd ak Serigne Touba mbooleem dañu am ci ay xéewal mu jaare ci sëñ bi dañ cee war a sant Serigne Touba waaye itam dañ ci sant yàlla mi nga xam ne mooy cosaani xéewal yi mooy balluwaayu mooy sursu mbooleem xéewal yi bu ko dee loolu kon mooy xaajub ñaareel bi dara gënu koo gaaw ci sa xol cofeel bu mag jékki-jékki juddu ci nga gis ne bëgg nga yàlla bëgg goo xam ni doo ci am sax sago lépp lu jege yàlla da koy bëgg nit yàlla yi da leen di bëgg te doo ko tey ndax bëgg gi nga bëgg Sëñ Tuubaa fi ne ci bëgg yàlla la dugg ci bëgg yàlla lay jaare kon loolu mooy xaajub ñaareel bi mooy tudd yàlla goo xam ne li ma ci gën a jublu mooy xéewal yi nga di ko lëkkale ak yàlla mi la ko jox loolu dana gaaw ci yee sa xol mu yee ci ak bëgg goo xam ni dana kawe ñetteelu xaaj bi mooy ñaan tudd yàlla gee ma wax ne fexeel ba bis bu set 10 minutes laa waxoon ne bul ko bul ko bul ko bu mu bu mu manqué bu neexee nga jël genn xasida rawatina xasidu salaatu salaatu al nabi te di ko njàng-njàng mu teey mu leer bañu yittewoo lim bu rëy bi bañu yittewoo itam nit ñi xam li ngay def Sëñ Tuubaa dala wax ne ñaar na nga ko sàmmante ci tudd yàlla mooy wax ne sa alal ixlaasi wal ixfaayi mooy li ngay def na sell te na koy nëbbu sa kàttan kattan lim bi amu ci solo li ngay def sellaay bi moo ci am solo ak yéene yéene ji nga ko defe moo ci am solo boo mënta jàng xasida itam la ilaha illallah de ko de ko tuddu masan 10000 rek par par jour bo julle suba masalan wala avant ngay julli suba nga tok wax la ilaha illallah bami bami 10000 rek nga jóg dem bul ci yene yeneen bir nag bul beug problème yi nga am nga diko ci fas ak yoy yëpp moom ci dug def ko muy ak jaamu yalla go xamni yalla tax nun lool lu bari ci nun li nu gàllankoor mooy loolu mooy yow di nga jàng xasida lu bari di nga jàng alxuraan di def ci yu baax waaye yooyu c'est problème yi adduna yi nga am ni moom nga ci aj nga xam ne yow yàlla taxut moo loolu mooy moo tax yu baree bari nga koy def te du am jeexi daanaka bu ko defee bi ci topp mooy ñaan ñaan it dafa am jeexit ju muy def ci xol ju rëy yàllaa ko digle lu ci bari nii bu ma ko waxee damay bëgg a wax fi ko yàlla wax ak fi ko yonent bi wax ak fi ko sëñ bi indi waaye loolu lu ci waxoon naa yu bari bari moo tax du ma ci du ma ci gën a taxaw suñu borom digle na ba tey ji alxuraan ud'u rabbakum tadarruan wa xufya wad'uhu xawfan wa tamaan ay lu bari bari wax na ko ci mooy yàlla daa bëgg nga di ko ñaan waaye ñaan goo xam da ngay toog di wax te li ngay wax sa xel nekku ci googu yi ñaan yàlla bëgg ko yàlla su yonent bi daa wax ne du nangu ñaanuk min qalbin xol boo xam ni teew teewlu yàlla bëggut googu ñaan sama classe gi yëpp dañuy gis koo xam ne mokkal na daanaka lii ay ñaan si ndiidi allahumma mustafa waftax lana kulla baabin wax wax wax te sa xol teewut sa xel nekku fi yaa ngi ci yeneen i mbir ñaan googu yàlla du ko gaaw a nangu yàlla bëgg li ngay ñaan ni sa xel nekk fi sa xel teew moo tax man may ma doon wax ne ki nga xam ne moo bëgg a appliquer lii may wax ni na koy def ci ci làkk wi mu gën a xereñe masan wolof te def ko mu di ak jaamu yàlla ñaan ak jaamu yàlla la bokkut ak talab talab ak duwaawu ñaar yooyu dañoo dañu bokkuñu ñaan ak jaamu yàlla la soo amee yitte da nga koy def soo amul yitte da nga koy def toujours da nga ko war def tolob nag moy nga am jafe-jafe bëgg mu réglé wu nga nga nga nga ñëw sakku ci suñu borom mu réglé la problème bi bu bu ko wéso nga nga nga faté yalla am na ñoo xam ne dañu am problème fuñ xamné nit ku baax koy ñaan wala ku yalla nangu ñaanam dañ ko séti bu luñ man ci toroxlu ak lo xamni japp nañu buñ ko ko joxee mu bëgg ci alal ak luñ ki ko def waye bis bu problème ba réglé wo rek jeex ñom faté nañ sëriñ boobu amna wala yalla am mi ngi fi ba keroog ñu amaat benen problème lolé bokku nak ñaan gi ma wax ñaan gi ma wax ni ak jaamu yalla go xamni dang koy def set té moy nga ak suñu borom mo ni wax de yalé mom la sëñ bi def ci qasida yi lu bare bare bare moy nga tok avant fajar mo ci gën di wax suñu borom mu woor la na yaangi ngi ak mom parce que yalla mi ngi lay gis yow ya amut katanu gis ko waaye mi ngi janloog yow dara ëmb ko ci yow nga di ko wax ne ko suñu boroom dangay dangay da seet li nga xam ne moom nga moom nga bëgg rek rawatina li gën a baax nag boo ko ñaan bul ñaan yu sew sewaan yi ay alal ak ay milliards yooyu ay caaxaan mi ngi mel ne nga dem ci président wu réew mi di ko ñaan ay juróomi dërëmi caaf ak yu demoon yooyu caaxaan eh, yow da ngay wàcc sa bopp fi kanam boo xasee bay ñaan yàlla danga koy ñaan lu am solo mooy mu. mu defaral la sa xol façon bi bima bima bima japp ne mom mo ci gën moy ni ma waxe ni rek moy nga wax borom ne ko man sab la torox lu fi kanamam njëkk ak it jox ko cëram gëddam moy magal ko wax ko kañ ko mom sun borom sun borom da bëgg ku koy kañ sun borom yow yaa amé katan yépp yaa amé bëpp xam-xam te sa doole ak sa kàttan yëmut fen te dara ump la dara tëwu la itam man nag sas njaam laa soo xam ne nii tooñ gu ne def naa ko waaye sama bakkan rekk moo man maa ngi lay jéggalu di toroxlu fi sa kanam di ñaan nag nga gàttanu ma defaral ma sama xol bi bakkar yi may def ni mang koy def waye neexuma yi may xol ci sama bët yi ni mang koy xol waye batay neexuma sama bakkan bi moma ma ëpp doole rek motax mako def waye xamna ne dara wu ci te neexuma itam ñaan nga dimbali ma dox sama diggante ak moy la bëggatuma la moy ak yu ni demee yooyu dara gënu ko gaaw jeexit ju rëy lay def ci sa xol isee ko rek ay fan te nga def ko ci ak deggu nak waxuñu essayé pour nga dégg naa dem essayé wax wax joo xam ne yow dugg la waaye danga nga ko def ci anam gu dëggu même am na ay nit ñoo xam ne ci àdduna bi ñoo xam ni bi nga ñoom gëmuñu woon yàlla masalan waaye dañoo toog ci anam gu dëggu wax suñ borom ne ko su fekkee ne am nga maa ngi sàkku nga nga nga gindi ma diir bu néew ñu gis ne bëgg nañ lislaam ba tàmbali di ci dugg yooyu am na ñoo xam ne dañuy nett li lu demee noonu dara gënu ko gaaw ñaan googu ci waqante boobu loolu it bañ ko waxee ci Sëñ Tuubaa moom mën nañ ne loolu mooy doxinu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa xasidaam yi yépp ay waxante la diggante ma borom ku ñu wax sëñ Mor Xari Sil mas naa wax ne mas sëñ bi mas naa julli gee mu ngi ci téere bi sëñ Cheikh Abi bind ci Sëñ Tuubaa tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba xayaatu Cheikh Ahmadou Bamba wax na sëñ sëñ bi mas naa gis sëñ bi julli gee sol yére yu weex tàll fam toog yëkkati ay loxoom di wax di waxante ak boromam bañ noddu fajar jugu fa waxante woowu dara gënu koo neex neex ita ngi ci woo xam ni kenn mënu ko misaal boo gisee xasidaam yi masalan xasida goo jël rek مثلا مطلب الفوزيني لو بري خيتي وخين يويلا داي غي سنج بي هذا وان اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا اهاب وانني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا اريب منذ جذبتني اليك يا معين عنايه منك الي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك li aka neexoon ma man leena tekkil wax ji ni ko sëñ bi waxe cax ka léegi man ko génn waaye xam naa loolu mëneesu ko lii mooy li ma doon wax ni ci anam gu kawee la ko waxe mufawwidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك نسور نجس موخنك يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واسفني من الشقم حتى أكون سالكا خير لقم نسور نجس يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهبلا يا بر رحمتك ولا رحمتك ارجع عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا نسور نديك واخ ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا muy رك فلتجمعا بيني وبين ما يسوقني إليك حيث علم وكل ما وكل ما عنك يعوق يا بني فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسن أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك أنت ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم حب كل مسلم مطيع وجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سر وعلم وقت جيني مني سكو تك واي موي ليامل نوخ موي سون بروم كودول ياو تاي جي مكو te maangi ñaan de waaye yow rek lay ñaan te duma dañ ci di la sant bi nga ma xëccee ma ñëw fi yow te loolu sag mbaaxa tax nga xëcc ma boobee laa dal di xëccu rek wuti la te lépp nag ci yow laa ko defee bi ka alayka mooy dox gi may dox wutsi la ci sa kàttan ak ci yow laa koy defee waaleykum salaam waaleykum salaam jërëjëf alhamdulilah jërëjëf alhamdulilah yaakaar naa ne wax ji ni ma ko waxee léegi ne su ko teg waaye dama la jox ay misaal rek yoo xam ne ëllëg da nga da nga da nga dem ba mën cee xam dara yaakaar naa ci wasilatu rubox masalan boo dem fu mel ne wasilatu rubox da gisaat mu tàmbaliwaat wax yu mel noonu mooy yaa rabbana inni madattul yawma yadi ilayk wa arudu sawman an maddiha ila siwaaka abadan fa abadan suqlil muna wal madada nawaytu anni لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد فسما يني تالل سما لخي يو يو لا يتالل سما يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فريدا وصبر سوما جوخي ماي سمت سوما خاني يتم تيول من دمي أغتي دي لغرم نخمنا نخاني غوغي مو بختي من فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدهر ما عجلت ولست أستبطئ ما أجلت فكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم ضير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من خيره الدارين فلتكن لي باقي جي وقنكو يا الله يا حي الذي ليس يموت maa li an tanaa alayka min sukut moo tax jàng xasida di lu neex waaye neexit du yaakaar na bala nga ko xam yàlla may la tuuti ak dégg ci li nga jàng ne kon waxin woowu nag moo mat a moo mat a roy mooy fexeel ba yow bis bu ne fukki minute nga am ko yoo xam ni dangay toog di waxanteeg sunu borom di ko ñaan di toroxlu fi kanamam di ko yëkkati itam di ko màggal moom suñu borom loolu yi boo koy def diir bu néew mu def jeexit du rëy ci sa xol ñaan it ni ma ko wax dinaa wax ni kenn ku ko weesu amul donte nag nit ñu baax ni léeg-léeg ñu nekk ci xaal boo xam ne dañuy rusa ñaan yàlla gis nga sëñ bi ci xasida gi ma wax daan bisil xasidati taraktu jalba maanaam tey bay naa di xëcc wala di ñaana dara waaye léegi nga déggat ko mu tàmbaliwaat ñaan mooy xaal bi moo ko yóbbu ci mu ñaan di kers maanaam kersa xam na ne lépp yàlla xam na lépp te itam li muy def moo gën moo tax jekki di ñaan loolu euh, kersa da ci am diggante mu borom waaye teewul léeg-léeg nga gisaat mu tàmbaliwaat ñaan goo xam ne ubudiya lay doon mooy la wax ca masaarik ne ñaan dëgg-dëgg mooy danga koy def ngir lim nekk ubudiya di ak njaam na kenn ku ajowul yàlla amul li ma njëkk misaal léegi muy nelaw yooyu yi ñu doon wax ni yow dangay tëdd rek di xaar xéwalug nelaw léeg-léeg sax nga tëdd ba fajar doo mën a nelaw buy ñëw du la tàggu dangay ngay jëkkee rek yëg ne léegi nekkatoo fi soo nee ba noppalu ba noppalu yëg ne dellusiwaat nga wax ji ñuy wax nii noonu la demee fi ne. da ngay yëg ne bëgg ngaa wax gaa ñaa ngi dégg li ngay wax waaye lii ngay wax ni xamoo noo def ba wax ko fi ne du loo loo kerye looy jëfandikoo la bi say ñëw nga bëgg a wax benn baat mu tëla moo ñi nga xam dañuy lu duñ mën a wax benn baat dégg bi ngay dégg ni du loo créer walla loo moom dangay ngay judd rekk yëg ne yaa ngi dégg li lii xaw ci kaw bi say ñëw doo déggati dara gis bi noonu yooy yi rek daa jar di ñaan yàlla bàyyil la ko fi kattan gi nga am nii dangaa jekkee ki di xale lépp ñu la koy defal mënoo yëngal sax ab cër kattan di la roofu ngay am kattan di màgg kattan gi yokk ndànk-ndànk ba àgg ci kattan gi nag yem ca njobaxatan la di wàññiku di wàññi ndànk-ndànk di wàññi ko di wàññi ko ba keroog ngay àggaat ci mel ni gone ga nga nekkoon loo def ñu defal la ko nga mujj booy dox ab danga yor lan ab kaan di ci sukkootu ni foo jëm ñu yóbbu la fu ba ngay tëdd ci lal bi nag doo man dara dal di dee nag kon yooyu yooyu noonu ay xéewal la yoo xam ni ngir mu des fi rek daajar di ñaan kon ñaan moom du lu kenn weesu loolu mooy ñetteelu jéego bi ma wax bu njëkk bi mooy di dunde lu lew ñaareel bi mooy fonk tudde yàlla te tudd xol moo tax ñuy wax te li koy maye mooy lan mooy di xéewal gu ne nga lëkkale ko ak boroom xewal gi mooy sunu borom mi la ko xéewale ñetteel bi mooy mooy ñaan gi ma waxoon ci façon bee ma ko waxee mooy waxanteeg sunu borom déyaale lañ koy wax munaaja lañ koy wax ñetteel ñeenteel bi nag te moo ci mujj mooy xalaat di jëfloo sa xel ci mbindeefi yàlla yi sunu borom ci alxuraan. واخنا بتا لعلكم تتفكرون لقوم يتفكرون افلا تتفكرون ما دافو بغ نيت دي دي جيفانيكو سين خالي تي خلات سين توبا واخنا تي مسالك الجنان ني خلات بن وقتو مو فوق جامو يالك ات بونت خلات ben waxtu bo tok di xalat ci mag sun borom gi mo faw at mo xam ne go nek rek di jaamu yàlla jaamu yàlla go xamni sa xel nekut ci li nga def xalatu ci wa akhbaru bi fawqi fikri saa ibadata sanati lazim taa bu ko defé xalat nak yi nga mëna xalat bari na dina ci joxe ay misal dana ci joxe ay misal yu bari amna yo xam sëñ bi dafa xane bul ci xalat moy jëmmi sun borom ji mënu xalat xalat ba xam deug deug gi nu demé moo tax bul ci xalaat lan ngay xalaat mbindeefam yi mbindeef nag yi nga mën a xalaat ba mu jural ak bëgg yàlla masalan lu bare bare la dinay wax ne doomu aadama yàlla da koo jox benn jumtukaay boo xam ni ci la rawee mbooleem li nekk ci kaw suuf muy li ñu tudde xel xam nga doomu aadama amul kàttan gi nag am nag kàttan gi ma am doomu aadama amu ko waaye ci xel mi ko yàlla jox la sukkandiku ba nag mii mu jàpp ko di ko def di ko liggéeyloo bu bu demee ba mu neex ko itam mu tër ko ren di lekk ba tey doomu aadama gaawut ni fas gaawe waaye am na xelum jëfandikoo fas ci di dox ay soxlaam war koy doxi soxlaam doomu aadama mënta naaw ni picc yi naawee waaye am na xelum jëfandikoo jumtukaay yi nekk ci kaw suuf ba mën a defar jum lu ñuy wax avion boo xam ni da ci mën a dugg di doxi soxlaam di daw naaw ci kaw jaww ja mënta yàgg ci ndox mi comme ni ci jën yi mën a yàggee waaye defar na jumtukaay yoo xam ni mën a dugg ca xóot xóoti géej ga yàgg fa lool ci te leen ko may mooy xel mi xam ngeen ne doomu aadama ba tey bëtam yi mënta gis lu sori comme ni ko lu mel ne picc mi ñu wax jégéej ni mën a gise gis bu sori boo xam ne gisub télescope la boobu doomu aadama amul gis boobu mooy lu sore sori mu jege ñal ko waaye am na xelum mën a defar jumtukaay boo xam ne lu sore sori da koy ñal muy télescope amul yenn eh, gunóor yu sew sewaan yi nga xam ne dañuy mën a réyal lu tuuti am na gunóor yoo xam ne bu ñu jubloo lu tuuti dañ koy réyal bu gis ba mu rëy ci ñoom loolu doomu amul amul boobu gis waaye am na xelum mën a liggéey li ñuy wax microscope nga xam ne te lu sori lu tuuti bactéries yi nga xam ne moo gën a tuuti ak microbe yi gën a tuuti da koy mën a réyal ba man koo séen mu rëy fi moom xel moomu nag dara gënu koy xéewal te da ko war a jëfandikoo noo koy jëfandikoo mooy nga di ci xalaat li ngay xalaat nii nga di ko delloo ci yàlla ci misaal yow sa jëmm ji li ñuy wax manaa ci ci ci arabi luxal arabiya dama xam lu ñu ko waxee ci tubaab manaa lañ ko wax ci arabiya mooy ñi ame feebaru feebaru sida système bi sécuriser seen seen seen yaram wi nga xam ne moo tax microbe yi duñ mën a ñëw ci yaram wi système boobu la ñu tuddee manaa système boobu doomu aadama yépp la ko yàlla defal jaww ji dafa bari ay microbe ak ay ay jarasim yoo xam ni ay virus yoo xam ne dañuy ñëw dugg sa sa yaram buñ ci duggee dañuy def feebar yàlla nag defal doomu aadama benn système boo xam ne dafay aar yaram wi Eh, mi ngoog système boobu nag boo gisee ñi am sida moom lañuy ñàkk mooy yàqu ci ñoom bu ko def virus bu ñëw dugg ci yaram yi bu yàggee feebar yi bari ñu ñu faatu loolu lu xéewal gën koo mag boo ko amutoon doo yàgg fii ci kaw suuf ñi am sida ñu ci ne dañuy tàmbale fay seeni bor soo demee xool bañ na am nga sida yow la nga def mooy li jënd say bor ak say kii te kenn du la jege itam nit ñëpp dañ la tàmbalee moolu moom duñ bëgg a waxate yow parce lu xéwal la bi nga juddoo masalan sa yaay bëgg jëm la bëgg ba di la toppatoo bu fi imaginer bu bëgg googu amul amul woon nga xam ne sa yaay moo tey jinax jii la eh, nekk ci kër gi yéen a yem ci moom so boo juddoo doo ko tee nelaw guddi te dala fay sànni ba nga faatu yàlla bëgg nga dund moo tax mu def cofeel gu mag goog ci sa yaay nga jaral ko yow sa bakkan gënal ko bakkanam loolu ma sa cee boyal xaya xalaat di ci xalaat te boo da nga yëg bëgg gi la yàlla bëgg yow ak yittewoo gim la yittewoo lekk yi nga xam ne moom la yàlla jàpp jàppalal mbooleem gàncax yu ci kaw suuf yépp mu tàggatal nu ko nunu neexe lañ koy jëfandikoo taw bi nekkul waxtu wu muy taw du ñàkk itam organisé na ko ci anam goo xam ne day jóge ci géej gi dem ci jaw ji sottiwaat ci suuf si di ko séddale itam ci anam bu tegu ci yoon loolu dara gën a koy xewal yooyu noonu damay wax sax lu bare bari ne masalan eh, waxtu yi leema jeex waaye damay wax ne masalan guddeeg bëccëg yi yooyu noonu dara gën ko nekk xewal imagine bu fekkoon guddi rek moo am bëccëg amul imagine bu tey bu fekkoon bëccëg rek moo am guddi amul masala yooyu am gi mu am nii dara gënu koy xewal dinaay wax itam ne lu mel ne suuf si ñu ne jaasibiye bi ci ne mooy pesanteur lañ koy tuddee yaakaar naxuma ci tubaab mooy li li nga xam ne moo fi téye nit ñi ima borom xam-xam scientifique dañuy wax ne tey bu ëppoon bu suuf si ëppoon ni mu toll jaasibiye boobu muy loolu fi téye nit ñi li mel ne acier di téye nit ñi ci kawam bois day gën a ëpp te bu ëppoon nit ñi waa duñ mën a taxaw dañuy dat mu comme ni jaan di def noonu la def dañuy dat mu ci kaw suuf te su fekkoon suuf si daa gën a tuuti jaasibe boobu day gën a tuuti te bois nit ñi duñ fi toog dañuy naaw dem ci kaw eh, eh, univers bi ci espace bi li ko def mu toll nii mu toll yooyu ay xalaat yu bari mas na ko ci xalaat ba gën cee dolli ku ngëm loolu daanaa ci joxe ay misaal yu bare bari masalan sunu weer wii nu am nii nga xam ne su digg ak moom yaakaar na deux cent quarante euh, deux cent quarante mille miles lañ koy xayma tey xam ngeen ne weer wi jaasibiya bi mu am pesanteur bi ma am nii moo tax géej gi léeg muy jub ak di wàcc imagine lu mel ne planète rouge weer wi mu am am na weer wi mu am woo xam ne six miles rek lañ lañ lañu la ñu sorante sunu weer wii nii waxuma la bu maanaam lii mënu sore nii xaaj bi rek mille miles bu fekkoon moom la ñu jege moom moom la ñu jege kon géej gi ci boppam dana génn fam ne dugg ci jéeri ji te boo fi ne nii suñu réew yéeg yépp ci ndox lay ne ca biit xóotu xóotu suuf sa la ñu ne kenn du fi mën a dund li def weer wi dem ba sori nu sori koo xam ni ëppul yeesu loolu ma sa ci xalaat tey suuf si nii mu wëree boppam ni ci anam bu nosewu tax guddi gi ak bëccëg am weer wi di ko wër ñoom ñu ànd di wër jant bi su fekkoon ne suuf si fii mu placé wu ni dafa gën a sori masalan jant bi scientifique yëpp wax nañ ne waa kon de suuf si day way gala day day glace day gala ba dund du mën a am ci kaw suuf su gënoon a jege jege jant bi ay centimètres yu néew boobaa rayon yu jant bi ceeñeer yi jóge jant bi daa dina lakk gàncax gi te gàncax gi buñ fi buñ da buñ dee nun bu subaa nu faatu parce que nun li ñu noyyi nii muy gaz euh, oxygène bi ñu soxla nun moom la ñu gàncax gi jox ñoom gaz carbonique bi ñu soxla ñun moo ñoo leen koy jox bu ñu faatoon ñoom gàncax gi bu subaa nun nun nu faatu yalla tek suuf si ci placement boo xam ni jegewul bopp ba ceeñeer jant bi di yàq gàncax gi waaye soriwul bopp ba euh, sedd bi di yàq dund gi yooyu yëpp mas na ci xalaat tey masalan galaxie bi ñu ne dañuy xool rek màggu suñu borom dinay wax ne suñu borom ku ko xamul benn da nga da nga da nga da nga da nga umple yàlla ku màgg la sëñ bi laa lay wax fii ñu ne nii du dara benn planète bu tuuti la comme yéen a ma gën a xam planète boobu système bi bi ñuy wax euh, bi mu àndal bi mu àndal nii muy groupe solaire bi loolu ci banlieue galaxi bi la ne galaxie bi ñu ne ci la ne galaxie bi lu xaw a jege cent milliards yi cent mille milliards yi biddiw ñoo ci ne te bu ñuy wax biddiw mooy jant bi yi ci des dañoo ànd ci moom rek waaye jant bi la ñuy wàññi yu mel noonu ñu wàññi ci ba mat cent mille milliards muy benn galaxie galaxie boobu galaxie yooyu benn la ci galaxie yi ñu gis te liñ ci gisagun xaw naa jege ñaari téeméeri junni milliards yi maanaam ñun biddiw bi ñu ne nii dara dëru ko tuuti biddiw bi ñu ne moo moo jant bi jant bi ëppee na ko million ngi noonu million ngi yoon ak ak lu topp masalan suñ biddiw bi suuf si boo bëggoon mu tolloog jant bi da nga ci am million yu toll ne suuf si mu doo ko tolloog jant bi te galaxie bii ñu ne ñu di ko wax darbu tabaana ci luxal arabiya galaxie boobu am na ci yeneen biddiw yoo xam ni ëppee nañ suñ suñu suñu jant bi million yoon comme ni jant bi ëppee suuf si <laughs> tolluwaay yu rëy yooyu nga xam ne sëñ bi da nga xam ne lii nii nun noo fi gën a tuuti te yàlla fonk nu jox nu lépp système bi yëpp nun lay liggéeyal saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi l أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بين بين دوم آدم دا فا ملائكة ييب نيو لين سجودال كو جوكو تير نيو كو جوكو تير كا باغنون موي ابليس داكو داك يمول تي لولو مو داف تي نون روح كو خامني داكو اسكان تي بوبام ونفخت فيه من روحي روح جي نيك جي دوم آدم بوك دك جي نيك تي يينن بينديف يي نغي خاري اك سخر لكم ما في السماوات وما في جميعا منه لب ين لا كو جوخ ين كو تخاجوك ين دوما دما يوي نونو لو مد خلات لا تي دا تاخ nga بغ يالا دا تاخ سا ديغندك سا بوروم nga am sax kersa خاتم التصوف بي سين باوي واي موي مسالك الجنان شيخ محمد يدالي واخنا تاني نيت كي بو دافي بو دافي اك مو يالا moo xam moo tax da moo xam da ngay njaaloo fi bërëb wala ngay naan sàngara suuf si nga toog day daal tiit ndax mooy yàlla doomu aadama rek moo koy def ne ci kaw suuf ak ci système bi malayka ñoom ñimewuñu ragal euh, mooy yàlla yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafaluuna maa yumaruuna dafa wax ne bu nit ki mooy yàlla suuf si boobu day wax suñu borom ne ko dama bëgg nga may ma ma xar waji dugg ci ma ma ma ma ma dugal ko sama bir asamaan si itam tambali di ko aljana fam ne tambali yuxu sun borom ne ko bum dugg fi fi man muk sawara tambali sun borom ne ko indil mako legi ma ma ma ko moom mii sun borom da di wax ne yéen da ngeen ko sakul, bu ngeen ko sakon di ngeen ko yërëm fi ne yonte bi neena lo def ci lu bon sa yo ñewé toog fi kanam suñu borom ne ko jéggal ma waxuma la mu jéggal la waaye dana ci bëgg mbég moo xam ne mooy raw waa ja nekkoon ca àll ba yor euh, lekkam ak naanam wàcc di faj aajo giléem ga dem ak lekk ga ak naan ga muy wër wër wër ba gisu ko mu wóor ko ne fi day faatu mu tëdd fi bërëb ne naa nekk fii mu nekk sama bàmmeel ba mu tëddee ne xërit rek yem ci giléem gis giléem gi taxaw ak lekk geeg naan gi mu bégg a bégg ba ne sunu boroom yow sama jaam bi man sa boroom maa ngi lay sant mbégte moomu mu bég yonent bi nee na yàllaa koy gën a bég saa yoo ñëwee ne ko jéggal ma gis nga mu wax ci xadisu xudsi ne yabna aadam law balaxat dunubuka anaana sama summa staxfarta li gafartu laka wala ubaari doomu aadama sa sa sa bàkkaar yi bu toloon ne feppi suuf si ñu tegale ko ba ca asamaan si loolu lépp boo ko defoon ci bàkkaar saa yoo ñëwee te boole woo ma ak dara ne ma jéggal ma ma daal lay jéggal waxtu wi ne ma la ne jeex na ma jeexal ci damaa gis lu xaw a lu am solo mooy lii mi dafa dafa dañ ko war di lu ñun rawatina ñun murid yi fi dañ ko soxla mooy yàlla dañ ko ci war di boole te yàlla Sëñ Tuubaa dañu doon lëkkale ak yàlla Sëñ Tuubaa dana wax ne na nga fexe ba bëgg yàlla ndax yàlla boo ko ñàkkee mënatoo am lu ko wuutu ci yow id kullu ma faaraqtahu talqa badal lahu siwa xaaliqikal muulil amal daa ma sa wax sayidna daawuda moom suñu borom ne ko ne ko daawuda gaa ñi nga xam ne dañ ma wan ginnaaw gaa ñi nga xam ne dañ ma wan ginnaaw suñu xamoon cofeel gi ma am ak bëgg gi ma bëgg ñu delsi suñ ko yëgoon danañ dee fañ toog ngir kersa ak bëgg ma nekku nag loolu mooy jëflanteeg ña wan ginnaaw ñi nga xam ne moom ci lu bon rek lañ ne ñi nga xam ne nag dañuy góoru dara loolu moom ñooñu la may jëflante ñoom kenn mënu ko xam wax na ci alxuraan ne qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah loo mën a def ci lu bon bu mu tax nga jàpp ne du ma la yërëm saa yu ñëwee rek dellu si ma jégal la kon loolu bokk na xalaat yooyu noonu ak yooyu di ko bàyyi xel ak bëgg yàlla bëgg nga yëg ne yow yàlla dalaa bëgg maa ngi jeexal ci yonente bi benn xasatu oxut gis na benn jigéen buy wër doomam di ko wër di wër di wër ba jël ba gis doom ji jël ko rek taf ci dënn ba nga xam ne am na ci saxaaba yi ñoo xam ne sax dañoo dañu dañ doon jooy ngir yërmaande ji jigéen ji am ci doomam ji yonte ba mu gisee loolu jeexital ñoom mu ne leen ndax jigéen jii dana jël doomam jii nii di ko sànni cib taal ñu ne ko dee de kii ngay xalaatu lool mooy leen yàlla lim yërëme jaam ñi moo raw ni jigéen ji yërëme doomam ji lallaahu arxamu bi ibaadihi min haadihi bi walidiha moo tax yàlla da ngay boo da nga yëg ne dalaa bëgg te duma la tax koo jóg cofeel googu nag boo ko kiyee diir bu néew sa diggante yàlla dina am relation bu ci dox boo xam ni dina la jural lu bare bare bare maa ngi jégalu lu baax ci guddal gi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu